ndaxte ki nga xamante ni kii mooy sa maam Mbàkke li mu gëm lenn rek la moom mooy jàmm ndax ban ko tooñee def ko lan ko def ba pare moom dafa ne leen jéggal naa ñëpp moom moo taxoon nag ci yooyu fi ñu ni mën naa wax ne ñaar fukki at a ngi nii màkke ñoom dañuy ñëw bu màggal jotee ñëw sargal si la te moo ne day ba nga xamante ni bii mbir mi di am ñoom ñii ña leen fi nekkaloon démb ak bërki démb ñooñu may ndam lii ñun murit yi ñuy gërëm nag sa doom ji bi ñu ñëwee ba léegi toogul jàppale ñu la ko sant yëpp defal nañu jox nañ nu ñu lekk jox na nu ñu naan defal nañ ñu lépp Mbàkke daal moom xam naa ne am na nag lu mu bëgg a waxtaan ak yow te bind ko dama xamul ndax dama la bu ko waxee ci tubaab ma def comme na ma defoon tekkil la ko ci olof ah, ah vous en français

Sénégal maanaam weesu na Sénégal ci jamono ji ñu toll nii. Et les militaires des éléments français au Sénégal que je commande et que je représente aujourd'hui sont très heureux de venir vous saluer. mu ne moom militaire yi muy yore muy armée française bi nga xamante ni bii yemul ci Sénégal mais sous région bi. la lay moom la ñoom moom la ñuy def pour aar leen. moom daf kontaan ci pour tey ji ànd ak personnel civil beeg yëpp ñëw seet si la yow Mbacké. Je vous remercie donc pour l'accueil que vous avez bien voulu nous réserver et je vous assure de notre plus sincère amitié. mu ne euh, bëgg na trop ci accueil bi nga ko defal maanaam dalal gi nga ko defal waaye nag ci biir loolu def ci euh, profiter maanaam pour wax la ne la tey bëggoon na xaritoo sa diggante ak moom ak ak avec il était important pour moi ainsi que pour mon adjoint ici présent mm-hmm. de venir vous saluer en ces journées si importantes pour la communauté des Mourides mu ne tey mbégte moom la àndal bi mi àndee kii di adjoint euh, ñëw seet si la ndax ci bis bi nga xamante ni bii bis bu am solo na ci yoonu Mouride vous êtes un des ciments de la nation sénégalaise. maanaam tey jii buñ ko waxee tey ci ciment bi nga xamante ni bii mooy tabax biir Sénégal mën nañ wax ne buñ ko mënee tëkkaleek loolu moom mooy yow maanaam te da bokk ci ñooñu daal maanaam. La force et la fraternité de votre confrérie offrent un cadre structurant, solide et pérenne pour l'épanouissement de votre communauté. mu ne ñoom ñi ngi ci moom mi ngi ci leneen. Euh, lu mu yore waaye ni mu gisee yoonu murit dafa gis ne euh, ni mu structuré maanaam ni mu ko tënkee dafa di lu nga xamante ni lii ku ci nekk ca la nga war a def fa nga war a taxawee rek foofu moom ngay taxawee te loolu boo ko gisee ci euh, ànd rek la plupart li ci ëpp day doon ànd bu nga xamante ni bii ca kanam rek moom lay jëm loolu nag ñoom dañ cee bëgg ñoom neen contribuant si directement à la stabilité sociale et sécuritaire du Sénégal mu ne loolu dafa di lu nga xamante ni lii nag dafay euh, maanaam euh, euh, dëgëral li nga xamante ni lii moom mooy jàmm waaye nag sécurité maanaam li nga xamante ni mooy aar Sénégal loolu da ciy da da ciy ànd moom moo tax ni mu ko xamee ak ni muy wëre ci àdduna bi gis ko loolu il faut mu ñëw waxtaan ceeg yow. les éléments français au Sénégal ce sont militaires français. renforcée par 180 civils sénégalais. maanaam euh, ñeenti téeméeri militaire français comme moom ñoom ñoo fi nekk. waaye itam ñeent fukki nit bu manqué ñaar fukk ñoom ñoo nekk léegi di ay personnel civil ñoom ñooy liggéey ak ñoom ñoom. notre mission. mu ne maanaam li leen indi fii. c'est de coopérer avec les armées de toute l'Afrique de l'Ouest. moom mooy lëkkaloog. armée yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci Afrique de l'Ouest ñuy juróom ñuy fukk at juróom benn dëkk Mauritanie itam ca la bokk ñoo waaw pour construire ensemble une architecture de sécurité collective mu ne loolu boo gisee ñoom ñu def ko dañ ko bëgg a tabax euh, armée bu nga xamante ni bi moom mooy sécuriser maanaam mooy aar dëkk yi moom mooy aar maanaam euh, waa waa waa waa Afrique de l'Ouest soowu jant Afrique soowu jant bi yëpp. et notre premier partenaire reste évidemment les forces armées sénégalaises. mu ne ñi muy njëkk àndal ci loolu moom mooy armée sénégalaise. nous avançons épaule contre épaule. mu ne moom daal gis na ne daal ñi ñu tooge noonu moom dafa jël mbaggam teg ci sunu mbagg xam nga nag man bu ñu tegee sama bu jëlee mbaggam mi teg ko ci sama mbagg keneen teg ko ci itam man ci yow laa koy teg mbàkke je je l'épaule là. qu'il va mettre ici. Moi, je prends son épaule, je prends mon épaule et cette épaule-là le calife général des Mourides. Eh. Pour faire face aux menaces et mu mhm. ne loolu nag boo gisee ñu bëgg ko def moom mooy ku gis Mali ak nanu ko yàq nga xamante ni bi ay nitu yàlla ña nga fa woon seeni xabroog seen lépp ñële jël ko yàq ko loolu ñoom dañu bëgg a ñëw def jàmm indi jàmm ci biir euh, maanaam Afrique de l'Ouest muy fukk ak juróom benn euh, dëkk. Et c'est ensemble que nous imposerons la paix, la stabilité et le développement harmonieux des populations. mu ne loolu day mënu ko def moom dong ñoom dong muy armée sénégalaise muy armée française allah kulli aalin ku ci mel ne yow dañu war a ñëw ci yow Mbàkke teg leen ci yoon ji leen ci jàppale bu më bu jaree beneen bis nga soxla ko sax moom mi il va se dina déplacer woon Ndakaaru ñëw seet si la et ce sera pas ce jour du màggal parce que ñoo ngi jéggulu nag ci xat-xat gi nga xamante ni gi am na tey ji te ñu ñëw toog fii ci sawet bu sañoon daal moom day jëlaat sax beneen bis Mbàkke ñëw toog sawet waxtaan ak yow wax li ñu bëgg ci Afrique yëpp Cher Serigne Muntaha. mu ne yow Serigne Muntaha. Je vous souhaite un excellent Magal de Touba. mu ne mi ngi lay ñaanal màggal bu baax bu neex. Merci mu ne jërëjëf ci li nga ko déglu. ak li nga ni li tey jii ah sëñ Abo. sëñ Abo yaakaar naa lim fi fële ba dox fële mu ñu. mu ñu dugal Mbàkke ah. daa ci dara de ñoom da dañ demoon dund laal ils avaient dit que ni ils allaient même pas manger ici mu leen dugal <laughs> fi leen mu ne na yal na la yàlla euh, guddal sa fan et vous accorde longue gudd fan at wér yaram gu mat sëkk Mbàkke jërëjëf pour sa teranga yàlla na la yàlla may gudd fan ak weer amiin il a bien entendu ce que vous avez dit. li maanaa ci biir wax jooju itam xam naa ko. mu ne li nga xamante ce qui est important dans ce que vous avez dit il le sait. ne ko xam naa ne li ñu ko fi indi mat na ko. et la votre mission ceux ceux qui vous ont confié la mission savent exactement de quoi est-ce que vous êtes capable de faire et vous le connaissez aussi. La façon dont vous l'avez dit, il l'a très bien compris. Il l'a bien mm-hmm. entendu. Il, il, sait que vous allez respecter ce que, ce que le, le, le, notre marabout Serigne Touba, Cheikh Ahmad Bamba. Il dit que vous pouvez rester tranquille, vous pouvez vraiment compter sur lui. mission boobu daan ci ànd ak moom il sera avec vous par rapport à cette mission là. la ak sécurité sàmm hmm? xam nañu ak sàmm rek la. il sait que vous êtes là pour la sécurité et le le le, le et garder le bien des autres. il le sait très bien. xam naa nag li dox diggante ñoom. <laughs> il sait ce qui se passe les les les relations que vous avez ensemble. c'est le bon Dieu qui l'a voulu. daan ko sàmm bu baax. et il euh, euh, sëñ sëñ Mamoune itam Bousso moom mën naa wax ne itam moom mooy sunu bunt fii Mbàkke. moom mooy imaam eh. eh. d'accord fa lañ jëm nii sax bu nu noppee fii. souvenir des éléments français au mhm. mu ne daf la koy jox muy xarito bi nga xamante ni bii euh, nanu ko kële defe woon moom la koy jëlee jox la ko. wala ne la daal xarito bi daal euh, euh, taxaw na. et du grand honneur que j'ai eu à li nga xamante ni lii wax fa dëgganteek yàlla moom mooy li nga ko may tey moom mooy ñëw bii mu ñëw nga nga nga dalal ko Mbàkke léegi nag xanaa bon sëñ bi bon ak ñaan dong nga ciy de ñaanu xaas. <laughs> il il va pri mu ne dina ko garde bu baax il va garder le cadeau donc euh, il faut. il va prier maintenant pour vous. <laughs>